yàlla mbay fa yàlla lóog kagare ordinateur Modou Faye ay waay Modou Faye ordinateur ero kiita hey détenteur drapeau c'est de l'état détenteur c'est le yaawo kagare ma yàlla sinig deleel Modou Faye ordinateur saan ordre ngi noonu ay yàlla simi ga xangoog yàlla loog fa yàlla mbay agarab ordinateur agarab ordinateur yàlla sinik fa yàlla loog fa yàlla mbay hey nee naa la machine ne jeg keer ne virus a rokiida machine ne jeg keer ne virus a rokiida yete fala kame ken jangun nderum fa dudu sale redu yaga bondi ka asbata sogo fudu mek jen ordi esan ba tey ordi mu ngi noonu ndeysaan si biir géew gi moom ordinateur ba mu ngi noonu ndeysaan mu ngi noonu danaa la détenteur la chef de l'état ordi ay waay buub na la jàpp pakete na la da ngay xaar ba beneen laa ilaha illallah da ngay xaar ba beneen ordi xangoog yàlla loog fo yàlla simik fo Yalla Mbaye xaga ref Modou Faye ordinateur ayca Omar demal ma ci combat Kaw Gourdin bi jërëjëf mbokk yi ñu ngi leen di nuyu fu waay nekk rek ci ci bitim réew kii kan la Weuz jàmbaar la xanaa xanaa Weuz la Weuz jàmbaar la Weuz Weuz daw na jaay na ba ma daw yëkkati loxo ba bilaay mbër la doomu yaraax la mbër la de waaye jëlee ma bi kaw moo yor ngemb bu weex bi loolu ci poids la say la kaw ci lesa bi ne woosay daw di wër noonu woos jàmbaar boo ko gisee de doo laajte ana mbër mi cey Weuz bi nag moo ñu làq combat kaw Gourdin bi mbokk yi bëgg nañ leen fu waaye nekk ci réew mi ak ci bitim réew tey suivre Gaston Production tey ñoo ngi fii kaaw 25 février kaaw kaaw ak xale ba kaaw yar ngembul weex li Kaaw bëtt na ko Kaaw ak Zilo attention da koy wër bañ naa wër bañ waa kii du Zilo yëkkati ko ba ca kaw dóor ko ci suuf doole cey Kaaw cey Kaaw gu mbër la de mais kii du Zilo wala du moom nduru na ma de. arbitre yaa ngi noonu vanix di bet la ñu sol loolu sponsor Gaston production la vanix di bet ñoo ngi leen di jaajëfal ci collaboration bi ñoom ay ndaanan lañ dañuy liggéey ak Gaston production ci professionnalisme lépp professionnel moo ko lal ndeysaan si poids léger ba tey waaye poids lourd ñu ngi dugg si Lamine Petit Sélé moo nekk noonu mais jëlal ma wës jàmbaar Omar wës a ngi daw di wër géew bi ba tey jëlal ma doomi Yaraax ji jëlal ma doomu Ngaay Mexe bi jëlal ma doomu Dalifor bi wës jàmbaar donay mbiita Njaay borom sigil ma ñëw nga foo miin fii nga daane woon Koña 2 fii nga daane woon digal fii nga daane woon Maguette Seck wallaay ndeysaan kookoy wës jàmbaar mi ngi noonu sëgg ca digg géew bi doomu yaraax doomu ngaay mexe bi nee naa la léegi ci favori la bokk loolu nag moo ko liggéey ndax bokk ci favori yi yombul lit avec Fra booy doog a ñëw la boole ci favori mais boo demee ban boole la ci rek xamal ne am na liggéey bu am solo boo liggéey wës jàmbaar poids la say bu jeexee ci poids lourd yi la ñuy dugg jekkati jëlama combat bi ci digg géew bi Omar jekkati nga de xaw ma di ci génn walla doo ci génn da ngaa jekkati de sànq nag am na ku jekkati woon même action même position. ba daanu comme nii nga ko def prise la ko def loolu it gën a këmel la xaw ma ndax yow da koy répété waat même chose wala déet mais jekkati nga ak lu mën a xew dan laa njëtt boole saw loos moom kay koy séntire ba mu dëgër nga def rotation à droite mu toog wala soit mu def demi flexion jàllale la waaye lu mën a xew jekkati nga de 5 millions la ñu teg mise bi. waa CNG de lutte ñoo ko teg ma ne ko waa CNG de lutte ñoo ko teg ci njiital Bira Sène ak Maysa Ndiaye ak équipe bi ñu àndal tey dimanche 25 février 2024 fii ci arène nationale 63 raw gàddu 63 poids léger 63 poids lourd boo dee xool nag ci favori tas yaakaar mi fi. général mili Malika mi ngi fi ordinateur mingi fi wóor jàmbaar mi ngi fi caaka fay mi ngi fi kaani sadam mi ngi fi jaata bu mbuur mi ngi fi ñooñu ñëpp ñu ngi fi te ay favori lan potilo mi ngi ci yankaw junior mi ngi ci Sa Thiès bu mi ngi ci cey poids lourd bi ndeysaan